dellu siwaat fii ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul aam li tariqatil muridiya yu yëkkate kàddu yi nga xam ne mu ngi ko jëme ci waa Touba ci kanam ni leen ko sëriñ bi waxee woon ci njëlbeen moo wax yaakaar ji am ci ñoom muy kàddu yoo xam ne adduna sëpp dégg nañ ko yaakaar jooju nag ba tey ji saa suñ xëyee de dolli ko bis bu set ñu gis ci ñoom ak pëstéef bu yokk gis ñoom ak dogu gis ñoom itam ne nañ ko tàmbalee woon dara soppiwu ko loolu nag day dalalum xel ci ne jëpp jëf joo gis mu mu yëkkati ko rek Sëriñ Tuubaa nangu na ko kon ñoom dañ leen di sant bu baax ci turu sëriñ bi gina ginnaaw boo xamee ni dellu siwaat nañ ci noonu laaj si ko ndigal ndax ñoom xam ngeen ne niñ baaxoo def lépp lu ñu yëkkati rek lañ caa def dara dañuy ñëw ba ci sëriñ bi laaj ko ndigal bu leen waxee ñu def ko ñu wóyal ko bu leen ñu bàyyi ko ñu teg ko suuf looloo seeru doxin mooy seen mandarga itam nag bi nga xamee ne ñëw nañ laaj ci ndigal sëriñ bi ci lii sëriñ bi jox ma ndigal wax leen jox naa leen ci ndigal ndax lii kat itteel na ma itteel joxoon dara jiitu ko ci liggéey bi mooy li ñuy bëgg a tàmbali muy fexe ba dëkk bi am taar bi méngool ci wàllu ay garab ndax garab ñëpp xam nañ li njëriñam boo jëmbatee garab saa su ci nit toogee njariñ la ak si coom rek mel na ne ab sarax la ci yow da lay fekk fa nga nekk ëllëg kon nag lu baax baax na fu ne waaye nag defe ko fii ci dëkk suñu tubaab fi la gën a farata kon nag sëriñ bi jox na ndigal taalib bi yëpp képp koo ko mën nga ànd ko ñoom ci lépp loo ci mën ci sa kàttan sa alal ak si jëf ak ànd ak ñoom ci liggéey bi ca tàmbali ba ba ca mujj ga ndax liggéey la bu rëy boo xam ne kat ni ñu ko bëggee bu ñu amee incha allah képp ku duggati ci duggati ci dëkk bi rek da nga xam ne soppiku na kon nag ñu leen ci soññu di leen ci ñax di ñaan itam ñëpp ànd ko ñoom bu ko tàmbalee ba fañ bëgg mu àgg fa kon ndegam sëriñ bi eh, joxe nañ ci ndigal ñaan na ci rek bay ba xel yëpp daj ci xel yëpp dal ci ci xam ne nam rek ci am ndax Cheikh Abdoulaye Mbacké daan na wax ne liggéeyee sëriñ Tuubaa de li ci am solo mooy façon bi waaye na muy fexe ba mu am suñ yoon néew ci ci loxo sëñ bi la ne kon nag am ngeen ci ndigalu sëñ bi rek bay boo seenum xel ci bu baax a baax. jëm yi defar dëkk moom. ginnaaw ñun te te borom fàggul fàggul na ko ba noppi faaw mu am. Mm. Eh, mooy mu jaare ci noonu. mu def ci yitte ju mat sëkk. waaye loolu moom amul lenn lu ñuy ci dëkk bi. du mm. ko gën a yitteel. alhamdulilah garab moom. garab